saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa CNG kan moo ko war a jiite kan la Matar Ba di tabb njiital CNG ko ko fa séenee jiite dafa mel ni mu ngi commencé xëy ka war a jiite CNG dafa mel ni kanam gaa ngi commencé fës ci axlu làmb mbooleem ñi nekk ci làmb ji genn wàll gi seen xel dem na ci Issa Ndiaye ba ñu ne làmb ji dañ koy denk benn directeur général xel yëpp dafa daj Issa Ndiaye ñu ne kan mooy Issa Ndiaye ñu ne mooy ancien directeur commercial bu Samsung kan mooy Issa Ndiaye ñu ne jamono ji mooy directeur général entreprise boobee ñuy woowee Impact MTC kan mooy Issa ñu ne spécialiste la ci marketing kan mooy Issa Ndiaye ñu ne spécialiste la ci sponsoring kan mooy Issa Ndiaye ñu ne mooy patron IACOM kan mooy Issa Ndiaye ñu ne moo fi nekkoon chargé du marketing et de la communication du combat Balla Gaye 2 moom Issa Ndiaye ca moomee jàpp nañ le moom la Matar Ba fa séenee dénk bi le boppam CNG li am ba des mooy ndax Issa Ndiaye moo ko jiiteem déen ñu ne li ci kanam rawuli bët en tout mi fi nekkoon président CNG moom boole nañ ko ca tànn ga ñuy tànn kay jiite CNG ba li moo waral journal ba xëy ne Alioune associé au choix de son successeur ki koy wutu ci bopp CNG bi moom Alioune bokk na ca ñu koy tabb waaye moom Matar Ba le ministre des sports na ay consultation fas yéene dalal axlu làmb kan la fas yéene dalalaat ñu ne Xaadim Samb ak Serigne Mour Diop mbooleem ña dalal di leen recevoir génn ga ñuy génn foofee dañ fay jële lu leer président Alioune Sarr it dana dem noppalu ji ndax loolu la njabootam bëgg bu ñu jàllee ca cadre écurie Waalo ya muy Lac de ak Abdou Diouf la journal ba xamle mooy ñoom ñëpp ñu ngi au front Lac am na combat digganteem ak Eumeu Sène Abdou Diouf moom am na combat digganteem ak Gris waaye foofee la journal ba jàpp mooy enjeu bi yëpp ci Lac de lay doon moom miy bëre troisième fois am digganteem ak Eumeu Sène beneen enjeu beneen combat bu neex combat neex boobee nag Vox Arena moo ko taxawal gannaaw ba ñu taxawalee diggante Franc ak Tyson 2 taxawal diggante Mama Lamine ak Garga 2 beneen combat boobee caatu ngewel ak alliance biram lañ ca toftal foofa toj bu ñu jàllee ca beneen combat bu neex ba a dox moom Diène Kaïré xëy na fësal ay kàddoom Diène Kaïré loo wax sa diggante ak Modou Anta mu ne c'est un combat pour moi bi le combat bu rëy la combat bu ponkal la combat capital la pour man même si Modou Anta est plus expérimenté que moi j'ai des pour le baat bu ñu jàppee ne Modou Anta moo ëpp expérience man Diène Kaïré yor naa ay ngele yoo xam ne fu ma ko jàpp lamb ji jeex ñi jàpp ne Modou Anta mooy favori ci bile combat ñoom laa bëgg a waxal combat bii damaa bëgg ñëpp xam ne sama combat la man jéen kay ret ci sama loxo bii laa koy teg kafu ma ci réewu ma ci te buñ jàkkaarloo dana xam ne fooyewu ma jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah